أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وتبارك الحسنات وتضعف الحسنات وصلاته وسلامه على سيد السادات سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله القائل أما بعد mbokk yi gannaaw bu ñu sante yàlla ba julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci waxtaan wi ñu aadawoo di ko def euh, par semaine bu nekk benn yoon te ñu ngi ñëw ci rijaalu hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi nga xam ne ñooy ñeen ñi nekkoon ci côté yonent bi sallallahu euh, ñooy xulafaa u yi xul ah, yu jub yi nga xam ne ñoo toppoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ca ñeenti xalifa yi nga xam ne ñoo gën a mag comme tey bu fekkoon ne dañuy lim ne euh, malaaka yan malaaka ñoo gën a mag ci malaaka yi dañ naan jibril mikaayil asrafil asrail waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam sahaaba yi gën a magee ci sahaaba yi mooy aboubacar ak omar osman aliyin ñeent yi ñi ñoo gën a magee ñooñu bokkoon nañ ci ñi nga xam ne rijaalu hawla rasul lañ nekk ci côté yonent bi sallallahu alayhi am na ci fukk yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dañu leen dañu dugg ajana dañ leen bégal ci ajana manil muasaratu mubassiruna bil janna al asra mubassiruna bil jannati hum ñi nga xam ne dañ leen bégal ca ajana mooy aboubacar omar osman aliyin ibnu abi talib ak talhatu bin obaydallah sahdu bin abi waqas e subayru awf ak abu obaydata bin jara sahdu bin saydi lan mooy turu aboubacar aboubacar naka la tudd dëgg-dëgg parce que saaba yi daf ci am ñoo xam ne seen tur yi sirnoo la nan mooy turu aboubacar sadiq turam mooy Abdoulaye ibnu Abi Quhafata kon Abu Bakar Sadiq noonu la tudd Abdoulaye ibnu Abi Quhafata wasmu Abi Quhafata Ousmane baayam Quhafata mu ngi tudd Ousmane euh, première ki nga xam ne moo njëkk a tuub ci góor ñi mooy Abu Bakar Sadiq ki d'accordoon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa ca gàddaay ga bàyyee ko Makkatal Mukarram ñëw Madinatul wara kooku mooy ba tey Aboubacar Sadiq kan la ñuy dàkk euh, euh, naka la ñuy dàkkentale Omar bun Khattab Omar bun Khattab Omar bun Khattab danañ koy dakkentale Abu Hafsin mal Farouk kan mooy Farouk Farouk ba tey mooy Omar bun Khattab ana ñi ñi nga xam ne ñoo dalaloon. Euh, histoire hijriya ñi nga xam ne dañoo bàyyeekoon Makka ñëw ma mu Madinatu Munawwara euh, kooku Omar bun Xattaab la kan moo kan mooy ki nga xam ni euh, dafa kan moo defaroon benn projet Omar bun Xattaab bi nga xamee ne def na defar na projet boobu euh, jëlut alali kenn dugal ci waaye alali boppam la ca def kooku mooy Omar bun Khattab mais bu fekkee am na ci projet boobu ñoo xam ne doon nañ ko ci dimbale mas nañ mën nañ ci lim rek kenn ne Abu Obaydata bin Jaraax kooku bokkoon na ñi ko doon jàppale ci wàllu projet boobu man Mansuur Nurayni kan la tuddee borom ñaari leer yi borom ñaari leer yi mooy Osman bin Affan lima saa summiya Sunuurayni lu tax ñu tuddee ko borom ñaari leer yi li annahu tasawaja isnatayni min banaati rasul sallallahu alayhi wa sallam ndax Ousmane bin Affan dafa denc ñaari doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man awalu man aslama min a sibyaan kan moo njëkk tuub ci xale yi kooku mooy aliyin ibnu abi talib man naama fi firaasil rasul laylatal hijra nekkoon di nelaw ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi fob ndenkaane yëpp dal di ko jox kooku mooy aliyin ibnu abi talib benn sahaaba bi nga xam ne bokk na ci rilwanullahi alayhim yal na yàlla def ci ñoom ngërëm nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko yemen mu jàng ci mu jàngal leen téereb yàlla bi dal tuubal Hamdaan ñoom ñëpp ñu daldi di tuub si topp ko bi ñu bindee lettre bi indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e yonent bi dal di jóot ci sahaaba boobu waaw dal di aliyin ibnu abi talib e, jalil am na sahaaba bu mag yonent bi sallallahu alayhi wa doon ko wax ne danañ la jox drapeau bi ëllëg euh, ndax danaa jox ëllëg benn waay boo xam ne bëgg na yàlla yàlla bëgg na ko waaw mu ne kan mooy kooku ak kañ la loolu amoon mu ne kooku ba tey mooy Ali ibnu Abi Talib te loolu mu ngi nekkoon ca fathu Xaybar xare bu ñuy wax Xaybar loolu ba mu amee kila la xew-xew boobu amoon ñu tuddal euh, ñetti sant yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santale na ko talxatu bin obaydallah talxatu bin obaydallah euh, daan nañ ko dàkkantale sahidul xayi waaye daan nañ ko dàkkantale talxatul xayri di ko tag dàkkantale it talxatul juudi Sa'd bin Abi Waqaas ñaata la ñaata at la amoon ci jamono bi muy tuub da dugg ci lislaam booba Sa'd bin Abi Waqaas mu ngi am juróom-ñaari euh, fukki at ak juróom-ñaar 17 ans la am dal di dugg ci lislaam ndax nekkoon na diggante yonent bi ak euh, diggante yonent bi sallallahu alayhi wa ak diggante moom euh, Saïd ibnu Saïd Sa'd bin Abi Waqaas silatur rahim ndax diggante yonent bi ak Sa'd bin Abi Waqaas am na mbokk gu fi dox ne waaw am na ndo mbokk gu fi dox ndax Sa'd bin Abi Waqaas nijaay la ci yonent bi sallallahu alayhi wa man awalu man rama saman fi sabilillah kan moo njëkk a sànni flèche ci yoonu yàlla kan moo njëkk a sànni fet ci yoonu yàlla kooku mooy ba tey Sa'd bin Abi Waqaas man alwahidu min alsahaba allati qaalahu rasul sallallahu alayhi wa sallam abi wa ummi ban sahaba ban benn sahaba la yonent bi sallallahu wa sallam ko njotu nga sa baay ak sa papa sa yaay ak sa papa kooku mooy sëhdu bin abi waqaas ba kan la yàlla wàccee woon wa in jahadaka ala an tusrika bi maa laysa laka bi elmu su fekkee ne da ngay eh, bu fekkee ne da ngay jihaar ki bokkaaleeg loo xam ne daal yow amoo ci benn xam-xam loola bul ca dugg kooku aaya boobu kon mu ngi wàccoon ci Sahdu bin Abi wakaas te aye boobu mu ngi ci suratu Luqman verset quinze lan mooy naka la yonent bi santale woon ki nga xam ni mooy subayru ibnu hawaam euh, ni ko yonent bi santale woon mooy xawaari yu rasulullah way weexi yonent bi sallallahu alayhi wa kan mooy njëkk a bocci jaasi ci yoonu yàlla kooku mooy subayru ibnu hawaam ba tey man baasawuma rasul bi raddi kitaabi xaatib bin abi ali abi ñan ñaar la yàlla yónni woon ñu delloo lettre bi ñu delloo lettre ci xaatib bin abi baltaata kooku ñaar ñooñu ñooy aliyin ibnu abi talib ak subayru ibnu awaam lan mooy xew bi nga xamee ne teewe woon na ko subayru teewe woon na ko ak booba ñaata at la amoon moom Subayru ibnu Awaam euh, Subayru ibnu Awaam xew-xew bi mu teewee woon mooy xew-xewu gëléem ga xew-xewu gëléem ga mooy gëléem gi nga xam ne dafa waxoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam gi di wax yonent tibi di tontu wala yonent bi di wax gëléem gi di tontu mu ne booba Euh, Subayru ibnu Awaam booba mu ngi toll ci euh, soixante quinze ans juróom ñaar fukki at ak juróom booba soixante ci la toll maa kunyatu Subayru ibnu Awaam lan mooy dàkkentalu Subayru ibnu Awaam su ke Subayru ibnu Awaam dan nañ ko dàkkentale Abo Abdallah bàyyi Abdallah maa ismu Abdurahman ibnu Awfan Awfin qabla l' islam naka la Abdourahman ibnu Awfin tuddoon njëkk balaayi lislaam di ñëw kon Abdourahman ibnu Awf mu ngi tuddoon habdu amrin man li la si sala rasulullahi xalfahu fi xaswati tabuk kan la yonent tibi sala kan mooy ki nga xam ne yonent tibi salaa sallam julle woon na ko e, gannaawam fekk ñu nga ca xas xaswatu tab tabuk kooku mu jullee woon mooy Abdurahman bin Awf ñoo ñii ñii ñëpp ñu tudd ñu ngi bokk ci rijaalu hawla rasul góor góori sahaaba yi nga xam ni dañoo nekkoon ci côté yonent bi sallallahu alayhi wa kan moom bokkoo woon yonent bi sallallahu alayhi ci Abdurahman ibnu Awf kooku moom la ñuy wax Saadu bin Rabia euh, kan moo waxoon mbokkam ci lislaam ne ko lii sama alal la lii sama kër la ñii samay jabar lañ jëlal la neex kooku moom mooy saxaaba bi ñuy wax sahdu bin rabia kam kaana sinnu abdourahman ibnu awf ñett ñettala atu abdourahman ibnu awf nekkoon hendama tuwafa wa ayna tufina jamono bi nga xamee ni eh, faatu na fan lañ ko suul euh, bi muy faatu dundam mu ngi toll ci soixante quinze ans ñu ngi ko suul ci cimetière bu ñuy wax Baqiya man aminu hasil ummati kan moo doon secrétaire u xeet wi secrétaire u xeet wi mooy Abu Hubaydata bin Jarrah maa ismu abi Ubaydata bin Jarrah turu abi naka naka mooy tudd turu abi Ubaydata bin Jarrah Hamir bin Abdallah bin Jarrah noonu la abi Ubaydata tuddoon Hamir bin Abdallah bin Jarrah radiyallahu anhu man aqaahu rasul bi abi Ubaydata kan moom mbokkoo woon yonent bi ki abi Ubaydata bin Jarrah kooku mooy Sahdu bin Muaz moom bokkoon yonent bi sallallahu alayhi ci abi ubaydata bin jarah mani sahabiyul jalil allazi ihtassa li mawtihi asa rahman kan mooy sahaaba yu sahaaba bu màgg bi nga xam ne keroog bi mu dee eh, xaras dafa yëngu dafa yëngatu mu ne kooku mooy sahdu bin muaz kam kaana si sinnu abi obaydata bin jara hindama eh, maata eh, abi obaydata bin jara ñaatala atam atam ci ñaata la toll woon jamono bi muy dee mu ne booba ay atam mu ngi toll ci cinquante huit ans juróom fukki ak juróom ñett booba ci ay atam ci foofu la toll moom itam dafa bokkoon ci rijaalu hawla rasul maa sillatu lazi bayna sahdi bin saydi wa omar bun xataab lan mooy jokkoo gi nga xam ne moo nekkoon diggante sahid bin saydi ak omar bun xataab huma ibnata amooma amooma euh, ñaari doomi bàyyi tëx lañ zawjatu uxti fatimatu bintu xataab di jëkkëri mbokku fa mbokkam fatimatu doomu xataab kon fatimatu bintu xataab mi ak omar bun xataab ñoo bokk ndey ak baay aslama kasir min hailati bin saydi saïd bin saydi uskur salasata minhum ki tuubaloon ñu bari ci njabootu saïd bin saydi tuddal ma ci ñett tuubaloon na saydu bin amrin bin nufaylu tuba tuubal ba tey fatimatu bintu xataab tuubal ku ñuy wax saydu bin xataab euh, sahid bin saydi ana fu mu ak fan lañ ko suul sahid bin seydi fan la deexee ak fan lañ ko suul sahid bin seydi mu ngi deexee ca xaqiqa waaye ñu ngi ko suul ca madinatul munawara uskur salaasa min alasina aksaru riwayat al hadis min asahaba tuddal ñett yi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu solo ci hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooka abi huray abi hurayrata anhu ci la bokk anas bin malik di deuxième abi abo saïd al qudri di troisième ñett yi ñoo ëpp sa saaba yi ñoo ëpp hadis yu ñu solo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abu hurayrata anas bin malik abu said alxudri ma ismu abi ma ismu abi hurayrata wa abi said alxudri abi hurayrata naka la tuddoon est ce que abi hurayrata rek mooy turam ak abi said naka la tuddoon ak bu fekkee ne tuddut abi said alxudri yi naka moo doon turam abi said ndax abi hurayrata radiallahu anhu mu ngi tuddoon abdourahman bin sakhri ad dawsi abi saïd al qudri mu ngi tuddoon saïd bin malik bin sinaan ñan ñoo doon géwéli yonent bi sallallahu alayhi wa man shu'ara u rasul al mashhurun ñan ñoo doon géwéli yonent bi yi gën a siiw bokkoon na ca ñu lima la ci ñett rek kahab bin malik abdoulaye bin rawahata Hasan bin Sabit ñett ñi ñoo doon géwéli yonent bi sallallahu ñoo ñi ñoo gën a siiw ci euh, géwéli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi ñuy wax ne heure bi jeex na ñu ngi jeexalee ci noddkati yonent bi sallallahu alayhi wa ñi nga xam ne ñoo daan noddal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que ba léegi li ni ñi jàpp mooy euh, Bilaal mooy noddkat ba léegi kuy nodd ca jàkka ja wala ca jumaa ja walla ci grand place da ngay dégg ñu ne Bilal bi na na Bilal bi nodd Bilal turu nit la pourtant dafa bokkoon ci rijaalu xawla rasul ci noddukat yi yonent bi la bokkoon Bilal bin Riba ci noddukat yi yonent bi sallallahu alayhi wa la bokkoon Hamrin wabni ummu maktuum ci noddukat yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokkoon ñetteel ba ki noddukati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zaadu alxurasi ñeenteel ba mooy abo maasarata kon ñu ngi ñuy wan ne heure bi jeex na ñu em foofu ci noddukati yonent bi sallallahu alayhi wa kon li ñu ci netti nettali et ci rijaalu hawla rasul rijaalu hawla rasul góor ñi nekk nañ soixante huit jigéen ñi nekk seize kon ñu ngi toll ci wàllu góor ñi e 43 question yi ñu wax fii dem na ci 43 question yu ànd ak réponse am wasalaamualeykum wa rahmatullah eh, di gërëm waa SMS di leen sant lool di leen gërëm ndax lii ñuy def tasaare lislaam la ak wane fi lislaam cosaanoo woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko daroon kon rija rijaalu hawla rasul yi ñoo daroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Eh, kon ñu ñun itam ñu ngi leen di ñaanal seen télévision bi fu ngeen bëgg fu ngeen ci bëgg a yegg ci monde bi moo xam Afrique la wala Asie wala Europe fu ngeen ci bëgg a yegg yal na leen fa yàlla yeggale barke alquran barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala nuuri l anwaar wa sirri l asrar wa tiryaaqi l axyaar wa miftaahu baabil yasaar saydina muhammadul muxtaar wa alihi l athaar wa asaabi l axyaar hada damani ama allahu wa afdalihi wa sallama tasliman awaluka yaamen wa bika nasta'in taqabbal allahu rabba nnaasi dahwatana mimma nuhibu bihi bi jaahi yaasini subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin